ba benn waxtu tegalee fukki simili ci la cheikh Mouhamadou Mountakha xalif général des Mourides exe ci buntu dalluwaayu université cheikh Ahmadou Khadim bu Touba xamale sëriñ bi ak barab bi dal dina tàmbali ci chantier bi nga xam ni moom mooy bibliothèque kër xasida yi te ñu jagleel ko mbind mi nga xam ni sëriñ Touba cheikh Ahmadou Khadim daf ci doon kañ suñu borom ak di ci tagg yonent bi liggéey bi isbu tarxiya yor ko di ko doxal fii nag sëriñ bi fekk na équipe yi nekk ci coulage dal de compression premier étage bi nga xam ni moo nekk ci bâtiment bi lépp toll ci junni junni ak ñeenti téeméer ak ñaar fukki mètre carré ak juróom ba mu fa bàyyeekoo ci la dem ci dalluwaay bi nga xam ni moom lañ jagleel formation professionnelle di fi nga xam ni ñuy jàngalee métier yi bokk ci biir université bi ba mu fa bàyyeekoo Cheikh Mouhamadou Mountakha dem na ci amphithéâtre bi nga xam ni junni ak juróomi téeméeri place la foofu nag fekk nañ fa équipe taxaw temm ci liggéey bi rawatina ci li nga xam ni moom mooy mujjantal gi ba mu fa bàyyeekoo nag ci lañ dem ci UFR bi nga xam ni moom lañ jagleel wàllum njàngum diine ak làkku arab UFR boobu le sax dinañ ko daloo ci ubbi teg école gi ñu jëm fii nag Cheikh Mouhamadou Mountakha wàcc na ngir xool liggéey bi fan la toll ginnaaw gi nag ci la wane ak mbégteem ba ñu ko jébbalee caabi yi sant sëñ Tuubaa rek. dëgg waaw sant sëñ Tuubaa rek. waaw lii lépp lépp tawfeexam la. dëgg la tawfeexam moo ni moo ni gindi. Mhm. moo ni womat. dëgg nii rek la demee. ni gindi moo ni womat. lu ko jiitu nag xalif général des Mourides jaaroon na ci barab bi nga xam ni moom lañ jagle njàngum majalis ci biir université Cheikh Ahmadou Khadim bu Touba te Touba ca kanam di ko taxaw ndongo yi fa war a jàngee toll ci junni ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ci juma bi nekk ci université bi ci la Cheikh Mouhamadou Mountakha dal di jeexale tànku nemmeeku yi fii nag moo fi jiite mbooloo mi jullik tisbaar ba mu génnee nag taalibe yi fi lañ ko doon xaar ngir gërëm ko kañ ko ci liggéey ak taxawu bi nga xam ni mu ngi koy defal askan wi ñaanal nañ ko fi itamit mu am gudd fan ngir naa li mu sumb yépp mu mën koo yeggale